waaw monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la euh, di bëgg a taataan kàddu yi ak ziar bi ak lu waral tànk yi fii ci kër gi. bisimilahi rahmaani rahim ñoo ngi euh, nuyu mbooloo mi. di leen nuyu yéen journalistes yi ci liggéey ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. di wax ne tànk yi tey tànk yu jaadu la. ndax màggal Touba bu dëgmalee yaakaar naa dafa doon wareef ci képp kuy kilifa ci réew mi. lépp lu nga xam ne dafa bokk ci responsabilité mu seq ay jéego fas yéene taxawu bés bi fexe ba bépp sénégalais bépp taalibe boo xam ne am nga yéene jëmmal li nga xam ne sëñ Touba daf ko digle ne woon lépp luy suma mbégte képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la bés bii bu jotee lépp loo xam ne rek mën nga ko def ci ab cant nanga ko def mm. looloo waral tey euh, ñun tam ñu ne dañuy ànd ak taalibe yi ci yéene boobu ñu am ànd ak sëñ bi ci cantaane googu mu cantaane looloo tax li képp kuy kilifa ci zone bi képp kuy euh, mooy maanaam gouverneur rek préfet ministre yi ak domaines yi ñu nekk premier ministre président de la république comme ni ngeen ko gisee kenn ku ci nekk rek lu mu mën daañ ko def ànd ci ak xeeb

yëg nañ ku am cofeel yëg nañ ku am ñeewant waaye yëg nañ tam ku taxaw taxawaayu jàppale nu jàppale bi nag doorul tey démb la ndax tey président Ousmane ko fàttali na ko ne néegi nii ca daaw la nekkoon ci jafe-jafe nekkoon ci grève de la faim ay njabootam ñëw fi mu yëkkati tàndarma yónnee ko ko loolu kiy jëf-jëf ju mel noonu mooy jëfu kilifa jëf kilifa gu am yërmande kilifa kilifa gu ànd ak taxawu tey loolu la Ousmane. feddali ci wetam tay sëñ bi am ceeg mbég wan ko ne ko véritablement tax fa ma taxawoon démb foofu laa taxaw tay ci accompagner gouvernement bi tax parce que képp kuy jug di liggéeyal jami yi rek kooku ku ñu war a taxawu la ku ñu war a jàppale la donc tey sant nañ lool ci yëg bi nu am tey. benn question. Mhm. Euh, euh, di leen di la gërëm ci ci tontu bi ci ci laaj bi sunu taxaway ci taxawaayu gouvernement bi lepp moy képp ministre bo xamné rek ci domaine éducation domaine santé domaine assainissement yegg nga né ci liñ la dénk amna lo xamné boko boko défé Touba jami gëna am dal dañ koy def ñun bañ ñu urbanisme cadre de vie hygiène publique ba légui bép set setal sax ñew nañ ko and ko sëñ Cheikh Thioro mm-hmm. doxal ko ci dëkk bi machallah matériel luñu am andi nañ taxawu kuréelu daayira yi nga xam ne ku leen fekk ñoo ngi ci liggéeyu ci set ak a setal ñu ñëw seet luñ ci mën a dolli ndax ak Touba moom Touba dafa ne ci yoonam. Mm. da nga ñëw rek fekk ko jàppale ko ci loola. Mm. Euh, te li ñu fas yéenee tam bokk na ci projet bi nga xam ne ñu ngi koy tëgg jamono jii. ànd ceeg suma secrétaire d'État Mama Talla Ndaw nga xam ne moom lañ dénk lépp lu mbiri logement mu may taxawu ci liggéey bi am na programme bu ñuy naal programme boo xam ne lañ ci jublu mooy fexe ba képp ku bëgg am foo dëkk mu yomb ca yow.

suñu jëwriñ bi nga xam mo yor yor mbiru assainissement seet nu ñu ak mom ngir liggéey bi gëna a ndax ñun ñëpp comme ni ko wolof di waxé ay yene ko tuxat den dañu yego ñun ñëpp ño and yego di gor gor lu ci dëkk monsieur le ministre vous avez rendu visite au khalif général des policiers de monsieur Mbacké quelle est votre euh, première réaction parce que c'est votre euh, premier magal en tant que ministre et en tant que membre du gouvernement je rends grâce à Dieu Je rends grâce au Créateur qui nous a donné cette opportunité. Cette opportunité en tant que fils de ce pays à qui on a confié des responsabilités de pouvoir contribuer à l'organisation de cette grande journée qui est cette journée de, Magal de Touba. Pour nous, c'est une grâce et on rend grâce à Dieu. Et c'est pour ça qu'on déploie tous les efforts que nous pouvons avec nos autres collègues ministres pour apaiser et améliorer les conditions de Magal pour nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner le Premier ministre qui a rencontré le Khalif général des Mourides et nous sortons de cette rencontre avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de, fierté. Fierté d'avoir comme chance ce guide, euh, Cheikh Muntaha Mbake, qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses bras et qui nous a démontré que quand nous étions dans l'opposition, comme aujourd'hui au pouvoir, il sera toujours à nos côtés pour nous accompagner, pour nous conseiller, pour nous guider, mais surtout aujourd'hui nous appuyer dans cette mission qu'on nous, a confiée de travailler pour le développement de ce pays. Et nous avons senti un saint homme conscient des enjeux et des défis et qui est prêt à nous apporter bénédiction et accompagnement. Et ça, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité inouïe que nous, avons d'avoir un tel vénéré guide pour, pour Cuba visite, mais Touba est une ville aussi euh, qui se développe de jour en jour. Euh, qu'est-ce que vous avez préconisé en tant que ministre de l'urbanisme, en, salle de l'urbanisme Alors, vous savez, depuis qu'on nous a confié ce portefeuille, qui s'occupe de tout ce qui est euh, cadre de vie, logement et, et tout ce qui est hygiène publique, nous avons mené plusieurs activités. Et même dans le cadre de la journée 7 qu'on organise, nous sommes venus ici à Touba le faire à plusieurs reprises. Nous avons aussi accompagné la communauté de Touba, parce que qui connaît Touba saura que Touba, les gens sont organisés, structurés et s'occupent toujours de la gestion du cadre de vie. Et nous avons tout fait avec notre directeur en charge du cadre de vie, M. Kosso, pour accompagner ces communautés-là. Alors, nous ne ménagerons aucun effort. Et c'est véritablement le leitmotiv de l'ensemble des ministres. Ensemble, nous nous donnerons main la main et nous travaillerons, que ce soit sur des questions d'assainissement, sur des questions du logement, du cadre de vie. C'est ensemble que nous relèverons le défi avec les populations. Et je le disais tout à l'heure, dans le cadre du programme qu'on est en train de structurer avec le secrétaire d'État, M. Momata Landaou, on est en train de travailler sur un programme national d'accès à la propriété et pour un cadre urbain rénové. Et Touba aura la part véritablement qui, qui, qui, est la sienne. Nous pensons même travailler sur un tout nouveau quartier, une, zone d'extension dans laquelle nous allons travailler pour pouvoir offrir un cadre urbain rénové et ainsi contenir la réurbanisation que nous constatons et qui est un phénomène assez présent au niveau de Touba. Merci, Merci beaucoup. Merci.